Euh, ñu mën a ñëw lal ay tëralin yoo xamante ne quartier bu ci nekk ASC bu fa nekk ci 409 ASC yi 33 zones yi ku ci nekk di nga defar sa plan d'action ni ñu koy mën a financer nag mooy ñun bu ñu deful activité mënuñu am recette ndax nos budgets sont votés en équilibre recette dépense donc à la fin de la saison doo dese dara li nga mun def mooy nouvelle saison bi activité yi nga daan mëne moom moo la daan may ay rentrée d'argent amatuñu ko li fi des mooy financement yi euh, subvention yi nga xam ne mairie yi dañ ko daan jox mouvement nawetaan yi ñun très tôt teeloon nañu alerté maintenant li ñuy demande te préfet yaakaar naa maire yi fi intervenir bi yombalal nañu ko subvention yi dañ koy jël orienté ko sur la base de plan d'action ak ay comité de suivi yoo xamante ne dañ koy teg pour ASC bu ci engagé wu wax dara ñu mën a ñëw xayma natt ko xam ndax li nga waxoon def nga ko parce que nag actuellement suñu avenir moom moo menacé wu il faut que sénégalais yi ko noonu il faut que waa Mbour waa département ko noonu avenir u nation sénégalaise moo menacé wu parce que mi ngi dem te li nga xamante ne jaaxal na américains yi jaaxal chinois yi jaaxal européens yi ak euh, yi du fi bàyyi africains yi donc lu ñu mën a def mooy suñu xarañ ak suñu engagement ak suñu solidarité moom moo ñu mën a dimbali ak di ñaan yàlla également mu jëleel ñu fi mbas mi